arbitre sifla waat na laaj sifla waat na combat Bour Gueweul ci diggante général bu Malick ak Obali ndeysaan ndaari ndaari ñaari xale yu tolloo doole tolloo taxawaay Obali de xanaa commenté koy def wala Obali mi commenté wu waaw Obali mi dadaa yeewu na kii yeewu na yeewu na de kii yeewu na fu mu nekk nii de Obali yeewu na waaye li mu may général sàq ba tey wóorul alaaj général c'est le général mooy diriger ah jël na tànk ba li mu koy may baaxul bi mu koy jox baaxul nee naa la xam na yoon bu deful na baaxul waxoon naa la ko léegi wallaay waxoon nga ma ko ndeysaan daanaan la waaye dah mel ne obali mbaru tànk la. obali daa naan la mbaru tànk la. mbaru tànk la. wallaay boo wóolu sa bopp def la neex. mbarum tànk la obali. waaye wóolu seen bopp bu biir. ndax bi ma ñeenteel yoon mu ne ko jox tànk bi. tànk bi mënu ci dara. mënu ci dara. déedéet mënu ci dara. hee hee. boo laay laa xëy na laa xale yaa ngay bëre ma ngay kal. ma bëggoon ndeysaan sëf naan bu sax yaram mandé bëre doon neex a daan ko am lecture de jeu la El na lecture de jeu ndax ngi calculer lamb ji waaw day bëgg a yàgg ci mbapat waaw ndax ngi bëgg a min séeréer yi moom bi compétir la déggoo ñu ne lu yàgg si diw niin buur wallaay ndeysaan boo yàggee ak ñoom da ngay dem ba mel ni ñoom wallaay dëgg la noonu la demee moo tax dañoo jël seen bëre jël seen lépp ndeysaan xam nga lii dafa baax ci mbër ñoom ñii bu ñu demee arène mbër mu ñu dajeel am problème. déedéet da am problème. parce dañu compétir. ndax boo xoolee lii nga bëre si sept combats wala huit combats. wala huit combats la jaaxal. léeg-léeg sax moo ëpp ko. wallaay sax benn takkusaan du la jaaxal kon. ndeysaan ndeysaan. général Malika Obali. waaye Bour. Bour Modou Lo Ama la amateur yi wax. bëre la loolay combat war nañ cee wax. Modou Lo a Baldé. coow li bëri na. Boy Niang Balla Gaye. wallaay loolay lamb loolay lamb ji. loolee lamb ja. Sa Thiès Reug Reug. xam nga nelaw fu ne nii. dafa war a ubbeeku. looloo ko war a yee. waaye dégg naa Ama nag mooy laaj cent millions. ah ah. dégg nañ ko quatre-vingts millions. dégg moom foog nga am xaalis. waaye Ama moo ne Modou bu màggee toon sax di yor ay dana ko dem nangu ay bekkam nag kaa yu bëre waa parcelle nee nañ ma comme que moo ko doon laaj war nañ ko mën a fay cent franc bu bëre maa bëre doomi faalaay waaw li tafa mbër naan wax kon nag ngaa tik tik taxul walaay walaay ndeysaan eh eh obali bàyyi sa tànk bi obali sàmmal sa tànk bi obali ndeysaan nga jàppante wat xale bi ñàkkul doole déedéet am na doole waaye obali lu leer lay bëre jëlaat na ko mais bi yoon du ci génn eh, génnaat na ci xale bi daa mën tànk eh, Obeuly ngi for général Obeuly Obeuly daan na général daan na ko général bu mu ko lesté ne woon naa la bu mu bëree doole daa topp xol bi bëre doole bi d'accorduma ko calculé wul ci làmb ji Obeuly daan na Malika